responsable yi nekk ci APR ya bax ñi jamono bi fare ak Assane Mansour Mbeng ak Taaxa Sam bi sentu ci paluk Macky Sall cër bu reuy pour bañ ci sargal gi nga nak ko amal jagleel ko bile ndam bu Benno bokku yakar nga xam ne Bargny daawate téeméer bo jël juroom fukk ak juroom benn yu tegal juroom ñaar tax gaa di sakku ne Macky Sall warna gëna dëkk bi ak ciono yi muy jonkontel taux de pourcentage bi ñu am kenn ñu ci département man na wax né ñofi ëppal mais bëgguma né ñu né bi day titeru ba tax na li ñu bëgg mooy a ah, président gestu suñuy jigéen parce que ñun dëkku mool lañu bi mu ñëwee Bargny rek digoon nañu ay euh, chambre froide pour euh, suñu jigéen ñi di ci mën a denc mais loolu déjà on a quai de pêche mais dañu bëgg ñu dimbali suñu jigéen ñi si financement yi bint Ba jàmbaar la boo xam ne alors mu ngi ci guddeeg bëccëg si jigéen ñi sama jigéen bi président bi gestu les responsable de Bargny à Barni, on sait qui est qui n'est-ce pas xam kan moi kan nañu gestu les responsables puisque responsable bu sont fi gestu muy les muy jigéen day tepp population nous on n'a pas besoin de prendre l'argent du parti pour mettre dans nos poches puisque ku nekk depuis 2011 di demale sa bopp je pense que nous ñu la joxee nga lépp la ñu warloo woon def nañu ko rawatina nag jafe-jafe yi nga xam ne askan wi dañ koy jonkonteel ak yenn makaan yi mel ni centrale à charbon bi ci Bargny waaye fexe nañu ba wax ak gaañ yi ngir ñu xam ne Macky Sall mooy li gën fa. ngeen wax problème centrale à gaz quatre jours avant le président m'avait reçu mu ne ma mais tax Bargny ak c'est en train de président c'est normal parce que su fekkee ne géej chaque jour mu jël trois mètres ay kër daan euh, centrale bi ñëw. Euh, nous à 400 à mètres de ma maison su ma tiggee samay palanteer man na bañ tal lampe je ma dis que Je tal lampe. Mhm. donc lolu su ça implique qu'il il y a un danger. port encore euh, euh, on nous a presque minorisé on nous a lésé parce que port Minam c'est le port de Minam de Sendou c'est un danger. J'ai fait des appels, mais les gens n'attendent pas. Parce que demain, s'il y a des, des patentes qui devraient être versées à, à on serait les plus grands perdants. Et vous savez que les 480 hectares là, c'est pour Bargne, c'est nos terres. Mais malheureusement, donc il m'a dit, il m'a un peu Le Premier aussi, hein, au passage, lors des, de, quand il devait passer à Bargne, la veille, non, la veille, il m'a appelé. Le, il me dit, mais tard, tu sais qu'il y a un problème, le président ne passera pas à Bargne. Mais pourquoi Moi non, il parle qu'il y a les, comment, les éleveurs et les gosses, les gosses, les, les, comment ça s'appelle pas de centrale de Vitake, ni sommes de le président. Moi, non. Moi, je suis rentré dans toutes les maisons où il y a des, des gens qui ont, qui ont, qui ont des terres dans, dans le port. Ils m'ont promis de voter pour nous. C'est une carrière. Moi, c'est une carrière. C'est ma carrière. Qui c'est une carrière Nous pour diable Barni. C'est une carrière Barni. Barni, dès le fond. je suis xel Binta Ba kenn ci responsable yi la ci wàllu jigéen ñi gis ne nag gannaaw ñoom lépp la leen waroon def nañu ko yaakaar bi mu ngi des jamono bii ci Macky Sall mu jox ay poste de responsabilité lenn ci ñi nga xam ne ñooy toggal APR ci. waa président Macky Sall yaakaar naa ne li mu waxante woon ak ñoom dina dina ko mottali parce que bi mu seetee euh, taxasam Samba dafa wax ak moom fi xamante ne foofu la centrale à Sall boobu ne te muy ban liggéey Taha Samba dugg a Géej wax ak waa Bargny parce que ñoom la affaire bi laal bi ñu bi mu waxee ñoom ñu ànd ak moom si li ñu wax ak moom premier ministre bi mu fi ñëwee dañ ko ñaanoon pour mu def ko centrale à gaz donc centrale à gaz boobu nga xamante ne ñun moom lañ ko ñaanoon yaakaar naa ne loolu dina ñëw xam naa ne daal fii centrale bi ne ñoo ñooñu ñoo gën a wote massivement pour président Macky Sall te loolu lépp liggéey yëpp monsieur le maire Taxa Samb am na si waar wu rëy ndax ñii tey ma taxawal ñoom fa lañ nekk te lay génn si centrale ba ñoom ñu di ko nokki baaxul baaxul si suñu njaboot baaxul si suñu sante donc daal ñu ngi ñaan président mu ñëw gëstu ñu defaraatal ñu suñu dëkk parce que tamit li ñu waxoon ax moom yëpp def nañ ka te ñu ngi ànd ak moom tey ba mu mel ni bàkk bi jib na waa APR bari ñi jamono bii fare ak Assane Mansour Mbengue ak Taaxa seen nammateef mooy nu ñu amee ay cër yu yaatu ñoom waa bari ñi ci lépp luy ndombal tànk njiitu réew mi war kaa joxe rawatina jox gëdd bari ñi ak coono yi muy jonkonteel gannaaw ba nga xamee ne bokk nañu ci ñu ko fal fal gu leer.